إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك إني أخاذب النصارى ñu ngi leen nuy baax di leen ziara di dellusiwaat rek ci plateau yi nga xam ne ñoo ngi koy ànd ak yéen depuis ci suba ba léegi ànd ko yéen ci bisu xasida tuwaay taara boo xam ne mooy wax dëgg yàlla borom xam-xam la pare tamit nekk ci biir réew mi wax dëgg yàlla di ku ñu ràññee lool di Serigne Moustapha Guèye nekk fële ca Touba Toscana ci Pisa wax dëgg yàlla at mu nekk nag muy teew ci bis bi wax dëgg yàlla di borom xam-xam kon moom lañ dalal nekk yi di ndigal loo xam ne ca saari wu Mbacke la jóge woon ba ak tey ci Serigne Sidi Moutar Mbacke ñu ko ñaan mu yàggal te wér sax mu yebal fi doomam di Serigne Cheikh Bara Mbacke mati lay xam naa kon dana jox rek kàddu gi nga nuyoo Cheikh Amadou Moustapha suñ paree rek ñu doog a duggee wala sabisa ci biir. bokk jullit yi bokk taalibe yi ñoo ngi dellu di siyaare ñëpp kenn ku nekk turam ak di balu àq ñëpp tey balu àq ñëpp tey ñaan yalla mu boole ñu jégal ci darajey bis bu tedd bi ak ñi nga xamne ne ca kër ya ak ñu nekk ci réew ma yalla boole leen ci barkeb xassida yi nga xamne seigne touba Tuubaa na ci lo xamne mucc ci tadib koo yaatu lool te xam nañ tamit tey bëri na lool ndax xëy na liggéey mi ngi leen xaar bi bis bi. mu mel ne kon tey ñett laaj bi ci njëkk rek mooy lu mel ne maana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom mooy ponk bi njëkk ci diine. ki koy dund nag mooy ki nga xam ne da koy yëkkati wala daf koy durus wala daf koy am sax di ko joxe addiye wala daf koy am sax di ci def parfum wala xeet yu mel noonu ba tey ci ki koy dund la bokk. wala timit eh, beneen ñetteel tom bi muy teggin yi nga xam ne moom lañu war a jox xasida yi ndax eh, loolam kon boobu ñetteel tom bi si amul Moussa kon xam naa day njëkk tom bu njëkk bi rek muy maanaam laa ilaaha illallaah naka nga nu ko rawatina ci biir mbindum sëriñ bi ndax eh, bëri na xasida yoo xam ne Sëriñ mi ngi ko tënkee lu mel ne laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullaah nañ ci gu waa daf ci indi lu mel noonu yaakaar naa am na fu muy waxee naan képp koo gis ngeen ko rek muy wax laa ilaaha illallaah bu leen ko noonu ba tey it am na fi muy waxee ne sama xasida yi làmboo na maanaam laay ilaaha illallaah muy sama mbind mi eh, yaatu na lool ci ab yaatam yi Seexul Musaa waaye naka nga nu ma bi nga ñu dalalee laaj ñu xam ne am nañ ci xam ci lu wér ak ci wéetaayu suñ borom gi muy kon fa yakon di suñ rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari koy wax ne ko marsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi basiran wa nasiran del waxat ko ne ko marsalnaaka ila rahmatan lil alamin kon ci biir yërmande jooju danañ ci meuna a nit man di jàmm ci biir laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci nga ko mën a def moo xam ponki lislaam yi la moo xam lum mu mën a doon ci lu nit di jaamoo yàlla te yàlla digal ko ko jaare ko ko ci yónnent bi ci bariwaay gën nit mënta xam nu mu toll ku dul yàlla mi nga xam ne moo baaxe sëñ Tuubaa mu nekk jëwriñu yónnent bi sallallahu alayhi wa laa ilaha illallah sëñ Mbàkke euh, ci tekki gi mooy man koo résumé wax ni nga xam ne moom la ci yónnent bi wax ci njariña laa ilaha illallah nga xam ne tey ku xam li ci yónnent bi wax jaamu yàlla mënu ko gaaw a gën a kawe te duutoo tàggoo moom di ko def talu yomb la ndax boo demee ci saxiixul Buxaari ci yàlla dige ak euh, pouvoir bi mu amee waaw léegi ki koy def ak ki ko dul def nan nga leen di xàmmee mu ne ko ki nan laa ilaha illallah di ko génnee ci gémmiñam illallah ak ki ko dul wax te baat bu yomb la moo tax sëñ wala tuaadu man raayta um faahu yuxriju laa ilaha illa allah xam nga waxul leneen yuxriju laa ilaha illa allah kattal mu karam moom yonent bi de ànd ak saxaaba yi ba romb benn barab barab boo xam ne aw doj wu mag moo fa ne wu mag comme xam naa montagne yi rek yonent bi ne taxaw leen doona yi da raw nañ ñu ne ko ya rasulullah ñan moy ñu mu fari doona yi mu ne ko moy ñi saxo di wax la ilaha illa allah muhammad rasulullah shakirun allah wa shakira ko ñan ñoy deri wa aljana yi mu ne ñi geew di wax la ilaha illa allah muhammad rasulullah ku ñëw ci moom ne ko waaw sariixa de li ma digal dafa bari lool te man mënuma ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam am ku ñëw ci moom ne ko waaw yónent bi li yàlla digle ci jàmm bi muy ponki juróom al islaam ala xamsa ci lañ tabaxee lislaam mooy kenn yi mu tàmbalee ko par benn nekk waaw ki gëm yàlla walla ñi gëm yàlla ñan ñoo ci ëpp ak pay gën ci mu ne ko ñi ëpp mu waa ñiy jàng nag mu ne ñi ëpp lu ñuy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah mu ne ko waaw ñi natt asaka mu ne ko ñu lu ñuy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah sahaba saakiruna bi kulli xayri kon way sikkar yi yóbbu nañ yi wépp yóbbu nañ ko kon xam nga fa gis nga fi yónnante bi jaar ak laa ilaha illallah ana sëñ Tuubaa nu mu def ak ilaha illallah moom bi mu dikkee ndax boo xoolee dund gi lépp ci laa ilaha illallah muhammad la moo tax mu wax ne ñi nga xam ne dañuy am lu ñuy fàggu ci àddina muy alal muy barke muy lu mën a doon wéetal yàlla ak di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam attiyaxnu ilaahi xaadiman lil wasilati damay topp yàlla ak di liggéeyal ki nga xam ne mooy sama wasila kayit ko def diir bi nga xamee ne am naa am xel ba fii ma toll walam asal abudu taasima waaye nag topp gi ma koy topp dama koy def rek ngir bëgg gu ma bëgg yonent bi bëgg Yalla, bëgg yonent bi ak topp ndigal yàlla moo tax ma di ko def liggéey bi may liggéey yonent bi sallallahu alayhi Wasallam it dama koy def ngir sopp gu ma ko sopp daani ila mati nabi bu saatihi ila ihdami nabi xam nga fi ne da ngay gis kuy jaamu yàlla am lu muy carte carte bëgg dem àjjana wala mu ragal dem safara Sëriñ Tuubaa nag nee na man jéemoo ma yàlla noonu waaye damay liggéeyal yonent bi ngir ne liggéey yonent bi dama koo war a liggéeyal dama koo sopp moo tax boo demee ci alxuraan da nga gis man wa min annaasi man yacbudallaaha ala arfin fa in azaba wa xayra adma nabi wa in azabat fitnatun an xaliba ala suma ko defee ba noppi nag su ma yàlla dimbalee defal ma ay xéewal dama koy sant lool ndax xam nga yàlla ni mu ab jaam buy sant moo tax mu ne su ma tegee am nattu it wala ma ñaan ko mu gàntalit damay muñ loola wa sabru su ma yàlla defalee xéewal dama koy sant waaye su ko ñaanee mu ma muñ ndax man xika afdalu min al insani min malakin aw jinnin aw insan xam ne dafay jóge ci jinne wala muy jóge ci malaayka wala mu jóge ci doomu aadama di ñëw ci man ma ñaan yàlla mu gàntal ma moo ma a lu jóge ci ñoom noonu ndax li kaw ni man xika huwa li maaxawil xu yóbbu wala xataaya ndax wa kaw ihsanin bariyatil hijab kep ko xamne mi ngi rafetal di jeme ci suñu borom ja yaay ki gëna jégé suñu borom motax na nak kon ma ngi leen di diggal mbollem lu bax lepp mi ngi dajé ci topp ibtidaahi wa jumia sarr fi ibtidahi yu bax yépp mi ngi maase dajé ci top sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam yu bon yépp mi ngi maase ci top bida señ tubaa nak neena bima amé am xel walam asal mun su taliba mahrifatan bila ijal jalla lolou motax mu dan jog nak di wëndeelu di dugg ci borom xam-xam yi di gaday alulamaa wa amali wa xawliyaa mooy boole di wëndeelu ngir bëgg a xam yàlla boole sama yéene ak sama wax ak samay jëf xattan saraftu ama jay ana bi mu waxee loolu lu mu ci wax nee na yónente bi jëbuma tëb rek ne dama ko bëgg a liggéeyal de tëbuma tëb ne dama ko bëgg a liggéeyal yónent bi moo sakku nee naa ñëw liggéeyal ko laa jëkk a liggéeyal yónent waaye nag sama xol jàppoon na lu jiitu xama jay sin te xama jay sin mooy 1895 waaye jot bi mu wax na ci la ko jàppe woon 1813 la woon Xaadim wax ba mu ko defee loolu nag fi ñu gën a war a mën a jàppe sëñ Touba sëñ Touba gis nga jëmmam ji mbindeef fekk ko ci dëkkam bii mbindeef fekk ko ci njabootam xam gi ñu xam li sëñ Touba wax ci xasida moo tax ndax xasida dafa nekk loo xam ne mbollem lu yalla jël ba na jam bi bo defé li ma fay la mu fexé ba lijeenti ko ba nit ki man ko jaamu te coono ya ko ca fekk du ko ci fekk ba pare mu am xewale suñ borom kon lolu moy li nga xam mom lañ lay andil ci première laaj bi jërëjëf jërëjëf serigne mustapha ci ci ci li am solo yoy la ilaaha bi nu jadidu bepp diine bo xam diine islam rek suñu borom duko ko gërëm te man suñ ko diine ji laa ñëw ngir yeesal ko kon loolu dafay daal di nekk lu leer lool wax dëgg ñuy sant baax ci leer gu am solo maam leer nga ko baatub laa ilaaha illallaah kon xamna ne kon ala sabi kon nañ bari lol ñi timi jël fafalnaaw bi comme ni nga ko mi avion yi ñi jël di sax lu melni saxar yi muy train yi ñi timi dugg sax ci auto bus yi ñi jël ci auto bop ñepp ñew ngir jëmmi Sëñ Tuubaa xasida yi ak sàkku ci lu baax kon mel na ne kon njariñ mi ngi ci ndax nit ñi di ci xiirtal nit ñi kon day mel ne kon xiirtal googu kon njariñ kon daf ci nekk mën nañ ci lu mel ne ñaari bayit rek lu mel ne li mu wax ne xasidati faaxat xasaayidal kiram wala tax abadan xayda maraam waaw xasidaam yi maam day womateeg ah, di teg nit soxlaam yi euh, maam njàng sama mbind dana agal nit ki suñ borom ta du jar muy ko xalwa ndax xeyna na nit ñu bax ñu njëkk ñi wala sax ba jom mi nga am ngir ñu ag suñ borom faaw ñu def xalwa maam diyaay suñ borom ngir mëna am buntu buñ mëna jaar ba ag suñ borom way suñ señ Mbacke ñew nga ci point bu am solo bo xamne ëmb na waxtaan wi lepp muy de ci bopam mo doy war ku dul yàlla doo Sëriñ Tuubaa xamuloo ko dammat ni yàlla axlaamu lil jundil kiram waxaade lillaahu biha xayral maraam waaye yemu ca de daf ne saa yu ma yëkkatee sama jinaas yi nee na iblis day yuuxu te nee na noonu muy reeloo yonent bi ni la iblis di fëxe départ moo tax mu ne kitaabati tubashiru mushaffaha la wax tafooxu mit fa aw xaraxtu hër wala iblisu fawran maa man taxawala waaye sëñ Mor li gën a yéeme mooy contraire sëñ euh, Mbacke xasida bu la seigne touba waxoon ni mu def qaratu arfa mustu munan tadawhu saka arfa araf yi nga xamne mo composer composé yep nak la wax da ngay jël alif gi jël sadda gi jël tombu gi neena yalla neewuma dama lay fay par xasida yow sa xasida yii bu fekkee noonu la ko yàlla defal yow ñan ngay fàggul loolu mu ne leen ñi ma koy fàggul su fekkente ne am nga xasida goog xëy nga fasoog moom ne dama koy jàng ma yàlla fay ci magasin yi danaa da nga ci am lu ne toll moo tax jaamu yàlla ni yàlla sante nit ki mu di ko def nga xam ne nit ki bu ko defee na ko yàlla bëggee am tuyaaba waaye wóor na leen a xéewali suñ borom du ci am sëñ jël xasidaam gi muy wax sama xasida gi man bu nee sama xasida gi mooy xasida gi nga xam ne mën a jox nuuru daaray bu nee xasida gi nag mu xaddamaatul xidma la wajhal kitaabati min sal yow mi fawqa salaatin qubilat wa saw mi xam nga julli for na léegi bu ne julli gun nangu waxul julli rek de julli gun nangu la wax mu dellu waxaat ne na nga barakatan kamatari samaay ñu defe na fa la yam ak nun mu ne nga defalaat sama mbind mii mu taxaw taxawaayub yónnente nabiyul mursal muy nabi bi muy yónne ñu ne ko waaw yónnente sëñ Tuubaa mu ne yàlla moo jël ne li may fay yónnente yëpp yow Ahmadou Bamba teg naa ko ci sa loxo kon sañ naa koo ñaan moo tax mu ne yaa man waxabte lii rusuli ñu ne ko ñëwaatal mu ne na def misla al xajji wa sawmi wa salaati ahli naji xam nga li gën a yéeme Sëriñ Tuubaa dafa am genn xasida gu mu bind baatu nax bu du ko xase siñe siñe nañ ko wa maa xalaqtal jinna wal insa illa li ya'buduni Sëriñ Tuubaa nee na ma jël nax bu duggi nag na xaaral ma tëgg ci xasida nee na ma daal di jël xasida gi ba bind ba suuf waxuma di ko jàng waaye li féeg mi ngi ci kaw suuf képp ku faatooti ma tabbal la ajana te maana la am la ann jahanama minal jinnati wa naas kon faral daal gi mu jeex nee na ma jël noon gi ak ayen gi ak baa gi tënk ko ci nafaan ana del ga gisuloo ko waaye nee na damaa xam ne suñ borom dana ma ko tere ma jël ko barkeeloo ko di ko daanele nafaani man lam yakun bi wala di wala bi walidin fata ba xala di moo tax sëñ tubaa am na lu mu waxaat lu yéeme te alxuraan jiyee ko ko may xam nga alxuraan fi mu ne dañuy am ñu ñu koy askanale mais sëñ ko moom bu ñu nee sëñ Tuubaa moom nag bul tëb rek jël ne sëñ Tuubaa moom bëgg a nam daan def mooy boo bindee alxuraan ba teg nga ñëw ne la seetal ma ba xam yàq naa ci wala yàquma ci au lieu que mu laabiré la te yàlla tax day dem takk lu rajo ya andi jom boo fotee danaan la rëppeelu nga deel bind geestu mbaa ngay dëkkee nafar ñu yor sabar yi di tëgg di dóor nga gis koo xam ne yëre yëre yi mu daan sol ay mbicc lay doon ay mbicc ngegenoo ko ñu ne ko lii nag mu ne alxuraan moo ngegenoo alxuraan buurub àddina bu masaan falu ñoo ñu daan foyee alxuraan ñoo la daan fal dañuy wut xalam njagamaar bo xamne musta tour deret xam nga ngot moy dugub ak ab yax jox la ko ne la demal ci keur sangam bo demé nga joxal mako jank sangam ne ko bu ngone fi laay reerse ngóot bi mooy dugub laax la alquran di joy di joy di joy ba dem ba ci ben place mu tok pour ñu terminer fofu rek bi mi joy seigne Touba fekk ko fa ne ko loy def fi mu ne ko fiñ la tek ñu ñew mu wut ab lal teg ca matla efons lal ca dorob bu wut parfum chiki ak miski ak Libyan diko pomper tiim ko naan ko yaa kitaaban karimi anta abibi wa qalil liggéeyu xaam ba ba mu dem ba li nga wax ne da koo moom dem na sax ba gën koo firndee ci ay mbindam yu bari ndax wax na ne malaka ni quraanu rabbul alamin wa xaadahu lil amin wal amin yaa xam loolu leer naññ la loo xam ne moo ko bind boo wax ne suñu borom kat yëpp moom la yépp ay alxuraan la ko tënkee ndax yaakaar naa li tàmbalee alif laam miim ba mina jinti wa naas yaakaar naa boo ko xasida yi du génn loolu. kon xam naa dañu njëkkante waxtu rek kon xam naa si Moussa ba tey ñëw kon ci point bu mujj bi rek muy teggin yi nga xam ne. ndax mel na ne jat nañu baax a baax. jërëjëf sëñ Mbacke Ndiaye ñu ngi lay sant. xam nga teggin ne de mooy lan dangay ngay raxas sab xol bam mu set wecc ci ragal yàlla. ak dundu sunna yonent tabi sallallahu alayhi wasallam xam nga fi nit ñi jël ko diko tambulé di acca kaw di for di ko warmaal waaye au lieu ko mu takkaat ndigam xamne li xassida ye ko ko may ta xassida yi bind ko bayam bind ko mom mi koy jang bind ko te ci lay dundu ba para jël xassida tak ko xex ko ba mu jógee fi bind ay xasida yoo xam ne si boo koy jàng day sellal sab xol ci loolu te booy jàng xasida gis jikko yooyu ci yow xamal ne la ko saytaane waxoon ci njëriñ ñëw na ci yow ndax dana ko woon naa def ci ñoom ñi koy jàng am pox moo xam ne buñ ko tàmbalee di def danañ ko ci dugal te buñ tëggoowul ak moom buñ ca dee danañ dem sawara loolu moo waral yii de am di am nga gis koo xam ne dafa war a liggéey lam cay recette ba mu am ci góor yàlla yi la ko daan delloo Cheikh Modou Moustapha mii bi muy ñëw jumaa ji bi mu fiy ñëw taxaw taxawalu ko ci xasida am na ci ñoo xam ne si li ngay dul ci naan majaalis euh, masalik jàng naa ci nangam maraaxib jàng naa ci nangam sobe si dugal ci xasida yi ak rëy gi ñu ciy dugal ak mooy yàlla gi ak maanaam ni nga xam ne da nga ci wane ne yow yaa ko def te defuloo ko te fi may daane la ci point boobu benn seconde sëñ Tuubaa nee na am na xasida yu ma bind yoo xam ne dañuy soppaliku jëmm nekk fële ca Touba Toscana ci Pisa wax dëgg yàlla di boroom xam-xam muy kun yàgg àndal wax dëgg yàlla ci bisu xasida yi ren nag di fukki yoon ak ñett ñu koy amal fii Touba Milan le 23 septembre 2017 fii ci Malpensa ci Busto Arsizio kon si xam jërë ngeen jëf إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مرسرى إني أخاذب النصارى